mais mais bi nga yëgee bi nga yëgee dese bi naka la la. waaw ku ma tal rek dem ku ma tal rek dem. siqaamiya tasmau yuqaabiluni yawmi almuqaffa almushaffau araani ida ma jitu yawman muhammadan taxaqaqa amaani kama atawaqqau Muhammadu xayrul tamit fan yee sa yaay sa maman mu euh, nekk ajaratu daba ba ñu ngi koy jaare tamit euh, képp nga xamante ni bëggoon nga kooku def suñu borom xaare ko àjjana alors euh, Prince est-ce que mën nañu ñëw digalaatal tuuti si relation yaa ak ajaratu daba booy dafa nekkoon nit ku baax nit koo xam ne souvent da daan bégal nit ñi mm-hmm. waaw man nag yàlla dafa defoon yàlla moo ma boole ak moom. waaw tout tout le temps danaan ma yow yaay sama artiste. Mm-hmm. tout le temps danaan ma gëmal sa bopp daan ma conseiller tout le temps. Mm-hmm. waaw des fois def vocal yu guddi di conseiller. naan ma gëmal sa bopp. waaw dañoo amoon relation boo xam ne comme yaay ak doom lu ñu am rek. waaw loolu la ñu amoon. mais bi nga yëgee bi bi naka la waaw ku matal rek dem mais ñëpp la metti daal ñëpp la metti di ko ñaanal waaw moo gënal ko fu mu jógee yàlla xaare ko àjjana jéggal ko ay bàkkaar waaw si daraje Seydina Muhammad mm-hmm. metti na daal mais sant yàlla ku mm-hmm. matal dem mm-hmm. moom moom à chaque fois ci lan ngeen daan waxtaan waaw comme yaa mosuñoo gisante nag wax fa dëgg ne yàlla mosuñoo gisante waaw mais dañ daan déggante daf ma daan conseillé waaw ba ñu mujjee déggante rek mi naan ma incha allahu rabbi xam naa ah soo génnewee lu bees incha allah rabbi mhm. dama lay booleeg moom moo incha allah mu invité la émission wanam ma mhm. ne ko incha allah daal dama daan conseillé. Mhm. waaw nit ku baax la daal guerrière la woon. nga ñàkk ko ku mel ni kooku lan lay def ci yow. Hmm? mel ni kooku noonu daan jege di la conseillé lan lay def ci yow. waaw nit noonu waaw képp ku la jege daal waaw nga ñàkk ko. Hmm. même jàmbur sax bu la jege nga ñàkk ko sax dafa neex waxuma laa koo xam ne dafa dafa la jege. Hmm. trop trop. mais mm-hmm. sant yàlla daal ku matal rek dem. Mm-hmm. moo tax ñu war a delloo suñu xel ci yàlla. Mm-hmm. bokk ndey bokk baay. waaw maytu lu bon. bàyyi waxante lu ñaaw. arrêté fitne yi arrêté lépp daal. waaw ndax yàlla xoolul mag. xoolul xale. Mhm. nañ delloo daal suñu xel ci yàlla. ci comme ni nga ko waxee mu nekkoon euh, li ma leen wax rek à fois man dama ko bëgg parce que bu ma gisee xale bi nga xamante ni dafa am jom am ambition man de man daal dama ko bëgg loolu. aussi di la wax aussi comme lii dañu am ci ay minutes jeex na dañ lay bàyyi rek nga jël sa fan si lay seetaan. waaw bëgg naa waaw avant ñuy jeexal. Mhm. ma sant waaw quelque si ñoo xam ne. Mm-hmm. dañ maa yàgg jàppale dañ maa yàgg a dooleel mm-hmm. ku ci mel ni sama ménager waaw lépp moom la mm-hmm. waaw des sax ñun suñ mën naa ne suñu suñu nelaw doylu waaw suba bëggoon day nekk ci projet yi rien rek waaw pour ñu egg fu sori rien rek pour ñu dégg prince fu kawe kawe waaw mu nekk nit ku baax mën naa ne plus qu'un ménager plus qu'un frère mais un bras un bras droit dama koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm yàlla bàyyi ma ak moom seytaane bañ a dugg suñu diggante mhm. ku si mel ni Fallou Ndiaye Benjamin mhm. kooku sama papa la waaw moom dégg naa ci son bi moo jàpp na waaw moom moo moom moom moo liggéey son bi ba pare son bi dégg naa orchestre waali bi sax na ci sàpp de <laughs> loolu moom jot naa ko dégg waaw gis nga mais daal moom xam na man xam naa dama koy mhm. bàyyi ak yàlla moom sama papa yàlla bàyyi kooku man waaw ku si mel ni Oumar Sakho kooku tamit sama papa la waaw lépp moom la te yàgg na maa jàppale waaw te wax ni nag Prince Fadiga ak Sakho production. Mhm. ñu ngi waaj ay affaires yu garaaw a garaaw. Mhm. ci national bi ak international. Mhm. Omar jàppale na ma. dooleel na ma. waaw dama koy bàyyi ak yàlla daal mu fayal na ko. waaw instant yi ñoo nekk di liggéey. waaw ku si ne nii amari make up. moom it jàppale na ma dooleel na ma. a gay taal soo limee rek da ngay juum. tonton Ndiaga. waaw ñoom Lil Pro. Ibro ñëpp daal bàyyi ma kenn ak sama famille waa Pikine bi yëpp. man Pikine laa juddoo waaw mhm. ñaan daal yàlla defal ñëpp jàmm mhm. sa fant yi tamit ñi ngi naan prince na bàyyi di toog lu yàgg li parce que dañ maam dañ lay namm di namm say musique di namm say clip dëgg la comme ni ma la waxee rek mhm. ba liggéey ndax xam nga nit ñi moom bu la bëggee à fois dañu bëgg ngay génne lu bees xam naa loo tax ni que da si baax des fois nga nekk sa koñ liggéey liggéey lu doy waaw génnee si génnee su jotee nag waaw nga mun a génnee nag mais di wax sama fan si fii laa leen def. tàggatool sa fan si waaw <laughs> tàggatool sa fan si lan may. waaw sama fan si nee naa leen incha allah dinañ defaat yow émission. Mhm. dinañ defaat beneen émission incha allahu rabbi mhm. waaw bu gën a neex bu gën a ala daw ma incha allahu rabbi maa ngi leen di waajal lu garaaw garaaw incha allah mhm. alors tey dañuy dalal booy bi nga xamante ni suñu borom ko may talent xam nga mu nekk ci wàllu way mu wooyee rek yaram yëpp daw tey kooku la ñu dalal mu nekk tamit booy bi waane ah moom laa dajeel muy euh, Prince Fadiga moom tey moom lañ dalal tey fii ci Feeling Dakar buñ defa du joxum lu yog mbokk internet yi après ñu dëkk moom ci waxtaan Prince ñu leen di di la ziar waaw euh, Abdou maa ngi lay fay. Mm-hmm. di nuyu waa àdduna. Mm-hmm. ak képp kuy seetaan film Dakar. Mm-hmm. di sant yàlla ak sama ñaari waajur. <coughs> alors mi ngi noonu kan yaakaar naa ne kooku gis ngeen ko moom mooy euh, Prince Fadiga ñu mu defee lu mu dugg ci waxtaan bi Prince ñu gis la temps yii paase nga defoon mu jëngal àdduna bi gars yi naan da ngaa marié wala marié woo tey li bëgg tey nga leeral ñu lool. waaw clip la woon clip la woon liggéey baa ko laajoon. Mhm. mais nekkul ne nga marié woon. liggéey baa ko laajoon clip la woon clip vidéo. ah. ak demul waaw. Mhm. clip la woon daal maanaam clip la bi nga xamante ni da ko da ko defoon. waaw clip la woon clip vidéo. li nga bëggoon jaay flip bi wala. waaw ah, comme ni ma la ko waxee rek. Mhm. liggéey bi moo ko laajoon daal liggéey bi moo ko laajoon waaw ah, liggéey baa ko laajoon. Mhm. en fait ñu bari ñu ngi laaj Prince Fadiga Prince Fadiga bon ñu bëggoon laaj yow yaay kan exactement. waaw comme ni ma la ko waxee rek. Mhm. Prince Fadiga dafa nekk doomu réew mi nekk nit ku ambitieux. nekk un porteur de voix. nekk. ku gëm boppam ku am espoir. Mhm. ku bëgg a egg fu sori mhm. te ku jóge fu sori. Mhm. comme ni nga ko waxee mu ne moom euh, jeune la bi nga xamante ni dafa am espoir ba pare gëm li muy def euh, li mu defee lu dul nga dëggal bokk internet Feeling Dakar rek après ñu gën a duggaat ci waxtaan bi may leen dara. bu leen déglu bu leen faale bàyyi leen saale mbëggeelu xaale. ku ci mënula wax lu rafet bu ci wax lu ñaaw ak loo leen jéemal jéemal du leen téere naaw. alors bu dee li nga xamante ni euh, soo bu bees la tamit mooy ñu ngi lancé message que ni euh, dafa war a euh, gars yi ko war a suivre dañ ko seetaan parce que am na talent son bi macha allah aussi tamit neex na après fi ñu jógee rek mooy que ni gis nañu da am xam nga da danga am courage am li nga xamante ni bëgg nga ko defal ci projet yi ci foofu toll. donc comme ni ma la ko waxee rek Abdou projet yi moom bëri na lool lool lool Prince dafa nekk nit ku ambitieux nit ku bëri projet lool commencé ko ci sama réew. Mhm. waaw tant que en tant que porteur de voix ak mhm. doomu réew mi waaw ëllëg bëgg naa jëriñ sama réew bu dul musique rek bëgg naa jëriñ sama réew. Mhm. bëgg naa dooleel sama réew. waaw bëgg naa sama réew lépp lu ma am. ma génn dooleel leen waaw di ko commencé ku si mel ni si orphelin yi daal. orphelinat yi. ak néew bu doole yi. waaw di waxaat Sénégal gi yëpp yëpp yëpp nañu bàyyi xel xel néew gi doole mhm. ndax tey yaa ngi am sa ginaar di ko lekk mhm. keneen ki amul mhm. yaa ngi am sa ndox di ko naan am na ñoo xam ne ndox bu ñu naan sax waaw amuñu ko tey te dund bi dañoo toll foo xam ne dund bi dafa seer lool lool lool lool léegi ñu bëri ndékkeetuñu ndékki dafa metti waaw même añ bi sax dañ koy kolo kolo reer ñu bëri dañuy naan ndox tëdd waaw comme ni ma la ko waxee rek lépp dafa seer waaw lépp dafa seer lépp dafa metti waaw nañu jàppalante. solidarité bi des na lool lool lool. waaw te yërëm jigéen ñi. Mhm. te yërëm jigéen comme ni mu koy waxee mais presque dafa am ñi nga xamante dañ koy dégg ci yow ñu ne booy bi dafa waane. boo déggee message yooyu def ci yow booy bi dafa xam nga affaire yooyu. comme ni ma la ko waxee rek yàlla moo ko def si man loolu prince la du si. du si quoi waaw waaw prince bi nga nekk nii ngay jël yenn engagement yi. Mhm. Mhm. yàlla moo ko def si man loolu prince la mun naa ne si prince la bokk mhm. Mhm. di ba may xale muhammadu rasulullah akaftu ala babi nabi muhammadin wa man raama durri fa huwa ajda wa anfau bi makkata bilmasa bi xayfin wa masharin أوفياء رسول القائل الترفي المعون بغار حراء بالمحصب لا أرى